waaye jullit bu nekk war na ko def ci xolam mu dëkk ci fu mu toll di ko wax ci làmmiñam wala di ko dund ci xolam julli juróom moom juróomi waxtu lañ koy def rek ci bés bi bés bu nekk juróomi julli am na lii di génne asaka nag moom benn yoon la ci at mi te duul sax ñëpp am alal ba asaka war leen di nga gis ku dund ba dundam jeex te fan wu gudd la am mosul denc ci alal lu mën a génn aj moom itam jaamu yàlla la goo xam ne benn yoon rek la war nit ki ci dundam aji màkka benn yoon la war nit ki ci dundam te kam war mooy ka am alal ju ko mën a may mu dem ba màkka njabootam ga nga xam ne itam dundal ko war na leen moom itam mu bàyyi leen dundam diirab muy dem dellu si te it bu amoon ay bor na fay bor ya ba pare doog a mën a dem màkka ca la ca def ci alal ku mel nii amee nii moom mën naa dem màkka wérgu yaram gaag mën-mën ba bu daje woo rek boo ko dem màkk war na ko benn yoon nag la war nit ki ci dundam luñ ca tegaat ci ay yoon baax na ay ngëneel la rek waaye benn yoon bi mooy warat bi wa sawmi ramadaana woor weeru koor moom itam benn yoon la ci at mi kon jaamu yàlla de jëfewul lii la buxaari yi muslim tirmisi nisaa yi solo an omar ibn alxataabi Omar ibn al-Khattab jëlee na ci yonent bi radiyallahu anhu qaala nee na baynama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama zaata yawmin istala alayna rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safari wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila annabi sallallahu alayhi wa sallam ngay dem ba hadis ba fa mu yem ci nettali bu mel noonu ci waxu arab waaye nañ wolofal Omar ibn Xattaab nee na benn bés toog nañu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ñu toogee ci wetam rek ci toog ci jataayam rek am benn góor gu yegsi yére ya mu sol yére yu weex dor la yére ya la wax yére ya mu sol yére yu weex la kawaram itam kawar gu ñuul kukk la gisuñ ci moom benn jéytalu ne nit la koo xam ne ci tukki la jógee ndax nit ku jógee ci tukki mu sori day faral di feeñ ci ay yéreem day faral faral di feeñ ci yaramam mu ñàkk pënd yéreem ci lim danay faral di nekk melokaan ku jógee ci tukki mu sori te la ca gën a tumuranke mooy laa yaarifu minna ahadun ñun ñëpp kenn xamu ko ci xanaa ñun ñi dëkk ci dëkk bi yëpp xamante ci sunu biir ci jamono boo xam ne bu nit jógee fu tumuranke noona ñëw kenn xamu ko war naa jógee fu tukki fas la waroon wala mbaam la waroon wala da doon dox bu ñëwee war naa amee melokaanu ku jógee ci coono tukki waaye loolu yëpp dara feeñul ci moom yére yaa nga weex jor kanam gaa nga ñuul kawar gaa nga ñuul kukk amul benn mandargaab ne ku jógee ci tukki la gisuñ lu dul mu yetti xataa jalasa ila nabi mu toog ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi mu jël ñaari wóomam taqale ko ñaari wóomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gapare ko ci wetam ci kanamam wa wadaa kafayhi ala faxisayhi mu jël ñaari loxoom teg ko ci ñaari poojam wa qaala mu ne yaa muhammadu axbirni an il islaami yow muhammad xamal ma luy lislaam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne ko al islaamu islaam daal moom an tashhada an laa ilaha illa allahu mooy nga seede ne yàlla rek yàlla ci yàllaam gi wa anna muhammadan rasulullahi nga xam ne it yonent muhammad moo yonentam gannaaw loola wa tuqiima salaata ngay taxawal julli yi juróom wa tu'ti zakkaata ngay joxe asaka wa tasuumu ramadaana ngay woor weeru koor wa tahujjal bayta ngay aji makka in istata'ta ilayhi sabilan ndem mën nga dem ba ca makka ca kaaba ga ci yoon te mooy wérgu yaram gaag am am ba xaala mu wax moom ci doon laaj-laaj bi ne ko saddaqta wax nga dëgg xaala mu waxaat ba tey ne ko wala xaala mu wax moom kii nett li hadis bi di Seydina Omar ne saajib naa lahu ñu yéemu ci moom yasaluhu mu ngi koy laaj woyu sat jëfuwoo te mu ngi koy dëggal ca lam ko laaj mu ngi laaj yonent bi te mu ngi ko naan wax nga dëgg kenn xamuloon yonent rek a xam ñëpp nangul nañ ne yonent rek a xamoon moom ñëw na laaj na yonent yonent xamal na ko mu ne wax nga dëgg fu mu xamee ne dëgg la ñu yéemu ci loolu xaala mu waxaat ne ko fa axbir ni anil iman xamal ma luy gëm yàlla itam xaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko an tu'mina mooy nga gëm billaahi ci yàlla na nga gëm yàlla wa malaa'ikatihi gëmal malaakaam yi ne am nañ donte gisoo leen wa kutubihi gëmal téeréem yi mu wàccee woon ci mboolem yonent yi wa rusulihi gëmal mboolem yonent yi mu wàccee woon ci ñoom téere yi ak ñam wàcceewu sax ci ñoom téere gëmal ñëpp wal yawmil aaxiri na nga gëm bés penc wa tu'mina na nga gëm it bil qadari ci lépp luy dogal ne yàlla rek kay kii am kàttan di dogal mbir yi xayrihi ya ca neex lépp nangu ko gëm ko wa sharrihi ak la ca wex ci dogal yépp nangu ko gëm ko xaala mu waxaat ne ko sadaqta wax nga dëgg xaala mu waxaat ba tey ne fa axbir ni anil ihsaan xamal ma luy ihsaan islam iman ihsaan xaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko an taabud allaha ka annaka taraahu mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi janoog yàlla foo toll rek jàppal ni yàlla ngay gis koo fonk ku mag ku janoog yow te sant la la ngay def di nga ko sellal kon jàppal ne yaa yàlla ngi lay gis loolu mooy ihsaan fa in lam takun taraahu boo demulee ba mën a janoog yàlla it jano jàppal ne yàlla ngi lay gis boo mënul am yëg ne yàlla ngi lay gis itam wala yow yaa ngi gis yàlla fa in nag bu na nga xam li ci gën a néew ne yàlla moom mu ngi lay gis xanaa dinañ déggee ci wax jooju ne kon yàlla mën nañ koo gis na nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis ki nga gis wekk ko lool mu sant la nga koy jëfal la nga koy jëfal ca bëtam ba janoog yow mu janoog nga janoog moom fokk nga sellal jëf jëf mu ne loolu nag mooy ihsaan boo demulee ba mën a am janoog moom itam la gën a tuuti xamal ne moom mu ngi janoog yow kon sellalal loolu mooy ihsaan xaala mu wax ko ba tey ne fa axbir nii nag ma xamal ani saati lan mooy bis penc qaala yonent nag ne ko mal masulu anha bi alama min asaaili laaj boobu nag moom ki ko laaj ki mu ko laaj gënu ko ko xam loolu la ko yonent tontu sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne fa axbir ni an amaratiha nag ñu xamal nag ma xamal boog lan mooy mandargaam ya lan mooy mandargay bés penc qaala yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko mal ma xaalal mu ne ko anta liddal amatu rabbataha te mooy jaam bu jigéen dem jur boromam jaam bu jigéen jur sangam wa an tara al xufaata al urata al aalata ria ashyaai mooy it nga gis ñu rafle ñu ñàkk ña nga xam ne amuñ sax dàll yu baax ñu rafle ci yére ñoo xam ne nekkuñu woon lu dul ay sàmmkatu gàtt yata taawaloona fil bunyaan ñuy sutante ay tabax loola bokk na ci mandarga yi ne àddina baa ngi jeex anta li dal amatu rabbataha nag am na ci ay xaddi sax dinañu wax ne anta li dal amatu sayyidaha benn la jigéen juñ xamee woon ne jaam la dem ba mu jur sangam sang ba moo xam ku góor la wala ku jigéen la ca mandarga la loolu mooy lan jamono buñ demee ba jaam yi bari lool te niñ leen di amee te ña nga xam ne ñoo moom jaam yooyu di ay sang di sëy ak jaam yi ñu leen di jural ay doom te gor bi bu amee doom ak jaam bi doom ja gor la kon kay jaam bi ku jigéen ki ka ko moomoon mooy sangam bi sëy ak moom doom jooja mooy doonaat sangu ndey ji ndax bàyyi ji lu du doom ji mu am lay am amam moom bàyyi ji mooy doonaat am amu doom ji ca mandarga la wala boobu sax danañ ko waxee neneen ne dinañ dem ba jamono ci dégginu borom xam-xam yi dem ba nga xam ne doom yi dootuñ xam ak ki way jur dëngee seen way jur lool ba way jur wi bu bañee doom ji daw ko ay njëriñam dagg ci moom mu mujj nekk jaamu doom ji du bëgg lu dul lu neex doom ji kon doom ji day mujjaat nekk sang way jur ba am na ñu dem ba firee ko noonu yéen yàlla musal ci boobu melokat wa an tara alxufaata al awraata aalata riasha ñu ñàkk ñooñu ñu wax ñu dem ba nga xam ne dañuy sutante ay tabax loola moom gis nañ ko ci jamono bi ña ñu waxoon ne ñoo ñu woomal kenn mënul am lu dul ñoom dem nañ ba léegi ñi gënoon a ñàkk ci gox yi gën a sori xamuñu woon amuñu woon mënuñu woon dara tey ñoo fi ëppale alal ëppale fi ay tabax ci mandarga yi ne àddinaa ngi jeex la qaala su man tallaxa Seydina Omar ibn Khattab mi doon nettali nettali bi nag nee na gannaaw bu mu laajee moom laajkat ba ñëwee woon noonu ca melokaan booba ci yonent bi gannaaw bu mu laajee yonent tontu lii rek fan tallaxa mu dal di dem fa labistu maliyan ma def ab diir man Omar ibn Khattab mi wax wax ci su ma qaala lii ma toog ab diir am nañu wax ci borom xam-xam yi ne toog na lu ma ñetti fan yonent nag dog koo wax ne ko yaa Umaru atadri mani saa'ilu ndax xam nga ki doon laaj laaj yi kan la woon qultu allahu wa rasuluhu a'lam ma ne ko yàlla ak yonentam rekk xam ñan kan la qaala fa innahu jibrilu ki doon laaj laaj yi jibril la ataakum ñëwaloon na leen yuallimukum diinakum ngir rek xamal leen seen diina dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diina ndax mooy ki daan wàccee waxyu yi ci yonent yi moo wàccee alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moo xam ne lan mooy yii mu doon laaj yonent moo tax lu yonent wax rek moom mi ko indi woon ci moom xam na ne lii dëgg la lu mu wax rek mu ne ko dëgg la kon yonent bi xamal na Seydina Omar ne ko ki doon laaj laaj yi jibril la dafa ñëwoon rek pour xamal leen seen diina dëgg la kay yonent moo ñu xamal diina ji yonent moo ñu xamal diine ji du jibril moo ñu ko xamal ñun attanuñu luñ jógee ci jibril attanuñu ko ci dara nag ci xeetu attanu ñun yonent lañ attan la jógee ca moom kon yonent ñu xamal suñ diine ji waaye lu ñu déggee ci dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diine ji mooy dafa ñëwoon ngir ma fàttali leen rek lii diine ji mu indi woon ci man ne ni ma ko jotalee noonu laa leen ko jotalee li mooy diine ji loolu lañ ciy déggee dégg bi doog a baax rawaahu alxamsatu juróom yi ñu waxoon nag ñoo ko solo dootuñ delluwaat nag wax ñee juróom yi wa zida fi riwaayatin fi xamsin dolli nañ sax ci beneen riwaaya ne yooyu ñu tudd ci juróom yi la bokk ci juróom yi ñu tuddoon juróomi ponk l'islam boobu laa yaalamuhunna illa allahu suma tallaa tallaa summa salla annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gannaaw bu mu waxee Omar wax ji mu dal di jàng ne inna allaha indahu ilmu saati yàlla mooy ki xam xam-xamu bis penc al aaya ba aaya ba jeex xaala mu wax ba tey ne su ma adbara fa xaala ruddoohu gannaaw bu jibril ñëwee wax wax ji ci kanam yonent bi ba dem yonent del wax na saaba yi ne leen waaw ana waa ji doon laaj woo leen ku mu dellu si ne leen ku mu dellu si falam yaraw shay'an ñoom saxaaba yi ko doon jéem a seet fan la jaar ñu woo ko mu dellu si seet nañ seet gisuñ dara fa qaala xaala jibrilu jaa yuallimu naasa diinahum dafa ñëw rek ngir xamal nit ñi seen diina loolu nag beneen xadis la daf leen wax ne lii ma njëkk a wax xadis ñëw nañ waxee noonu waaye wax bu mujj bi itam xadis ñëw na wax loolu ne gannaaw bu mu demee yonent dafa wax saxaaba yi ne dem leen seeti ko loolu beneen xadis moo ko andee noonu loolu moo doon bunt bi doon wax ci lan mooy lislaam ak lan moo doon imaan ñu ñëw ci bunt bi ci topp moom it mu ngi wax ci lan mooy melokaanu gëm yàlla ku mat melokaanu gëm yàlla ku mat an anas ibni malikin radiallahu an radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الشيخان والنسائي حديثا نجليك في إمام أنس أنس دومي مالك رضي الله عنه مجليك في ينتبي ينتبي kenn ci yéen gëm yàllaam du mat mukk lu dul man dama nekk ci moom di koo xam ne maa ko gënal ñëppam maa ko gënal ñaari waajuram maa ko gënal ay doomam maa ko gënal mboolem nit ñi lii la yonent wax kenn ci yéen gëm yàllaam du mat lu dul maa ko gënal ñaari waajuram gënal ko ay doomam gënal ko mboolem nit ñi lan mooy jooju wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit bu nekk daf laa war a gënal sa bopp sax bu nekk loon ne gënal na jullit boppam bu woote waan xeex ne kaay leen ñu dem xeexee ak yéefar yi kenn du dem ndax kenn ku nekk day yëg ne bu demee mun na am mu dee fa bu demee mun na am njabootam ga muy bàyyi gannaaw danañ ñàkk ku leen toppatoo bu nekkuloon ne yonent bi leen doon gënal seen bopp duñ nangoo dem ca xeex buñ xamul la cay xew yonente leen gënal itam seeni doom yaag seeni wayjur yaag seeni lépp tegtal la ca ne la tax ñu nangoo xeexi xeex ya yonente leen gënal seen bopp kon yonent gënal la sa bopp lu muy tekki mooy li mu indi di sariatu ne lii la yàlla santaane nañ ko jëfee lii la tere nañ ko bàyyi yonent gënal la sa bopp mooy doo topp sa bànneexu bakkan ba mooy ko mukk gën a bëgg yonent bi loolu lay tekki kenn ci yéen gëmam du mat mukk lu dul yonent bi daf laa gënal sa bopp gënal la sa ñaari wayjur gënal la say doom gënal la mbooleem nit ñi bu xasee tudd sa bopp kay wax sa ñaari wayjur wax say doom wax na ñëpp kenn ci yéen nag gëmam balaa muy mat fokk yonent gënal la sa lépp bés boo xamee ne santaaneeb lislaam a ngi nii la yonent santaanee sa bakkan lu mu la woowoo ci lu safaane woon ceeg moom dawal ne la yonent bi gënal sa bakkan bu la sa ndey ak bàyyi naree xiif lu safaani wanteeg loola na la topp yonent bi bëgg yonent bi gënal nga topp la neex sa ñaari wayjur yu dëpp yu yu bëggul la yàlla lu yonent bëgg su la ay doom wala keneen ku mën a doon naree xiir ci leneen lu safaanu wanteeg li yonent santaane itam bëggal yonent bi mbëggeel goo xam ne moo lay xiir nga daw leneen lu dul moom jëfee rek lam la sant ku mel nii mooy ki gëm yàlla dëgg kon xadis bi nañ ko dégg ci déggin ba bu jàppale jëmm yonent baa ngi nii rek naa ko bëgg mbëggeel ku gën a rëy ni ma bëggee sama bopp wala bëggee ko samay wajur wala samay doom kon dégg ba day gàtt déggal ne yonent bi mooy jëmmu lislaam jëm yonent bi mooy jëfu lislaam yi kon nag na la lislaam gën a leneen lu mu mën a doon lu mu mën a doon nga koy bëgg sax bëgg ko ndax lislaam la boo koy bañit bañ ko ndax safaani wante na ak lislaam wa anhu jëlee nañ ci moom ba tey moom kan ki mujj a tudd rek di anas an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu alxamsatu illa aba dawuda yonent ba tey wax na ne kenn ci yéen ngëmam gëm yàllaam du mat mukk lu dul dafa bëgg mbokkam julitam daf ko bëggal lim bëggal boppam ci lu baax xataa yuhibba lu dul dafa bëggal li axihi maa yuhibbu li nafsihi fekk yaa ngi bëggal sa bopp lu baax loo xam ne bëggaloo ko ñeneen yaa ngi bañal sa bopp ay lor yoo xam ne sa yoon ca ñeneen bañaloo ko ñeneen rek ngëm nga matagul ngëm gi daal balaa muy mat li nga bëggal sa bopp ci lu baax bëggal ko ñeneen ci lu baax ni nga koy yóotoo am ko fexeel yóotoo yóotoo ko noonu ñeneen am ko di nga dem sax ba gëm yàlla may la day mel ni nit ñi am lu baax yow moo la gënal nga am lu baax waaye nag loolaa la may lu baax wa anhu jëlee nañ ci moom ba tey mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne salaasun ñetta ngi man kunna fiihi wajada xalaawata al imaani an yakuna allahu wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhiba almar'a la yuhibuhu illa lillahi taala wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yu an yugtafa fi nnaar rawahu lxamsatu illa aba dawud ba tey nee na ñett a ngi de ku fexe ba bokk ci ñoom rek am na neexaayu gëm yàlla gëm yàlla dafa am cafka cafka gu neex sax mu ne ñetta ngi ku ci ku fexe ba bokk ci ñoom rek am nga bànneexu gëm yàlla boobu an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwaahuma yàlla ak yonent nañ la gënal kulul ñoom kulul ñoom sax nekku fi waaye boo demee bay foog ne kulul ñoom a ngi fi yàlla ak yonent bi na la gënal ñooñu ka dem ba xam na xam na ne kulul moom nekku fi sax duñu wax ñoom moom rek kan la yàlla la kan la yonent la waaw la di wax baax na ca boo ko xamee an yakuna allahu wa rasuluhu ahaba ilayhi mima siwahuma wa an yuhiba almar'a la yuhibuhu illa lillahi taala booy bëgg waay bul ko bëgg lu dul ne yàlla tax booy bëgg waay bul ko bëgg mukk lu dul ne yàlla tax yeneen melokaan yi ñuy bëggee bu mu tax mukk nga bëgg na nga bëgg rek te yàlla tax dëgg la am na melokaan buy feeñ tax nga bëgg waaye nag bëggal ga moom na yàlla rek wa an yakraha an yahuda fil kufri kama yakrahu an yusafa fi naar na nga bañ itam dellu ci lépp luy kéefar ak weddi yàlla ni ngay bañee ñu lay yóbbu ci safara xam nga nit buñ ko bëggee ba max mu dugg ci safara lépp luy dooleem dana fexe bañante koo kooka di ko jéem a dugal ci safara sa ba bu mu dugg ci safara kon nag ku mu doon ci yéen na bañ a dellu ci kéefër ni muy bañee ñu sànni ko ci safara yii de ku dem ba mu dëgër ci yow yow cafkaak gëm yàlla am nga ko kon cafkaak gëm yàlla ka neex waaye nag ci nii rek lañ koy amee wa anhu jëlee na ci moom ba tey di anas mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayatul imani hubbul ansaari wa ayatul nifaaqi bughdul ansaari rawahu shaykhani wa nisaa wa nisaa'iyu nee na mandargay gëm yàlla mooy bëgg ansaar mandargay naafiqit mooy bañ ansaar ansaar mooy waa Madinatul Munawwara ñi nga xam ne ba yonent amee jafe-jafeeg waa Makka ca mbañeel gañ ko bañoon ndax ñàkk koo xam ndax yonent ku ko xam bëgg ko ñoom waa Medina ñoo ko tatagal mbooleem saxaaba yum àndaloon ñëw Medina ñoom ñooñe ñoo leen tatagal ku ci am ñaar fexe rek sa benn ci alal ja nga am da nga ko jox kenn ci saxaaba yooyu ñoo dooleel daal l'islam ba l'islam am doole ji mu am ba mën a ñun tey yonent nee na bokk na ci mandarga mandargay gëm yàlla bëgg waa ansaar bokk na ci mandargay naafiq yi gën a wér nag mooy bañ leen ba léegi nag nañu xam ne ansaar a ngi fi ku leen bëgg rek gëm yàlla nekk na ci yow ku leen bañ rek naafiq bu mag a ngóob ku baax koo mos a dégg ñu tuut rek ba tey mu ngi ku bon koo koo déggoo nit mu ngi fi nañu dégg mbir yi delloo ko ci tey ci la hadis yi hadis yi ak xam lépp luy xam-xam doog a nekkee lu ñuy jëriñ عن علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النصمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم والترمذي والنسائي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نينا maa ngi gën ci ki nga xam ne moo toj ab pepp génnee ci lam ci génnee ki nga xam ne moo bind mbindeef yi maa ngi gën ci moom ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma wax ne moo joxanteeg man kóllëre wax ne kenn du ma bëgg man Ali ibn Abi Talib lu dul ku gëm yàlla la waaye kenn du ma bañ lu dul kooku naafeq la yonent moo ma wax wax ji ñu bëgg a seet nag lan moo tax mu wax lii Ali ibn Abi Talib Ali yi moom ci muhaajiroon na la bokk ñu jógee woon Màkka ñëw Medina la waaye Ali ibn Abi Talib baayam bi ko jur moo bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk benn ndey benn baay mooy ki nga xam ne ba muy laata mat muskalas ñu koy togg jëf rek mosul gëm benn yéefar mosul sujjotal benn yéefar foofa rek la gëmee yàlla moo tax ñuy wax ne karamallahu wajhahu yàlla keral na kanamam gi ndax mosul sujjotal xaram Ali ibn Abi Talib mooy ki nga xam ne moo mos ci nekk ak yonent di ko jàppale ci lépp lu yonent mu dem mën ñëpp ca xeex ba ba yonent bi gënal ko boppam ak léppam Ali ibn Abi Talib mooy ki nga xam ne moom la yonent may doomam Fatima mi mu gën a bëgg Ali ibn Abi Talib mooy ki nga xam ne moo jural yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari sëkkam yi Hasan ak Husayn Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib yonent bi nee na bokk na ci mandarga gëm yàlla ku ko bëgg ku gëm yàlla nga ku ko bañ naa fekk la kon nag àll yi dafa nekk ba tey jullit bu baax bu yittewoo jamono bu nekk di dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diinal islam def ku ko bëgg rek gëm yàlla ngoogu ku ko bañ naa fekk ngoogu kon li ñuy bëggante suñu biir nañu xam ne ne jullit bi mooy ci wuutu mboolem ci baaxu démb moom it na xam ne nag moo wuutu ñu baax ñu woon démb li ñu doon sonnee ngeen l'islam dese ko moom it ñu sonn jamono bu nekk l'islam dese yal nañu yàlla def sànni si biir ñooñu yaa ngi nëbbil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di baax seen mboolem saxaabaam yooyu jamono wal seen moom wa ma zalika ala allah jaam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وهو قوات لما سبقنا سلاح من أخوالات إلى أسراتك المستقيم وعلى ما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ويرى الخاتم لما سبقنا سلاح الاقوال يا سالك المستقيم على لا يخرج العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبقنا بالأخلاق والآل لا سائر المستقيم وعلى وآل قدر الرضا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ñu dajeewaat dajeew sant yàlla sunu dajeeb tey nag sax mënoon na nekk waxtaanee yaatal cant googu ndax ñoo ngi jógee ci lu rëy lu am solo loo xam ne doon nañ jéemantu ci sabab lu doom aadama bu ñu xam doon nañ ñaan yàlla mu mag mi wax ne na ngeen ma ñaan ma may leen dékkoon nañ suñ loxo ci yonent yàlla mu sallallahu alayhi wasallam ñaan yàlla may nañu gàmm gi rafet na fa tabarakallah gàmm gi ñu jàppoon ñetti fan ci weeru octobre wii mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept ñaan nañ ci yàlla lu bari sabab lu nañ ci doomu aadama ca yoonu sabab lu yee ñu xam lépp rafet na alhamdulilah kon alhamdulilah sant yàlla la mën nañ ko tënk mën nañ ko yaatal mu yaatu nag moo gën a mat ñu tënk ko tënk ga mooy nga wax alhamdulilahi rek yem yaatal ga nag mooy nga wax lu tax ngay sant kon ñoo ngi dajewoo nara jàng xadiis te ci àllarba ji
waaye ma ne su nekkoon jotaay bi ngir waxtaanee gàmm gi la waxtaanu sant yàlla yaatal cant ga la muy fa amma bi ni'mati rabbika haadith ma ne njàngale la jotaay bu ko jaaxla waaye nañ ko bàyyi ba mujjul jotaay bi nem xaj na ci wala beneen jotaay ñu jàng rek tey lii di xadis bi ñu tàmbali woon yal nañu yàlla gërëmal lañ jot a def lépp ci yëngu yaag dal ya ci gàmm gi yàlla tollale ko darajay gàmm ga gën a rëy ñu mag ko màggalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla gërëm yonent bi gërëm bismillahi arrahmani irrahim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه خمسة وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم حديثا يونس بي صلى الله عليه وسلم دي وخني عبد الله بن عمر عبد الله دومي عمر ci leen jëlee xadis bi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julit mooy koo xam ne julit ñi mucc nañ ci làmmiñam lépp luy loru làmmiñ julit ñi mucc nañ ci ci julit bi kon julit mooy ki nga xam ne du lor nit ñi ci du lor julit ñi ci làmmiñam ndax làmmiñ dafa am ay loram bokk na ci jëw rambaaj ak lu nu roog moom lépp ay lor la yuy jógee ci làmmiñ rambaaje diggante ñaari nit ñu bëggante woon ba nga xam ne buñ gisee dañuy bañante ak lépp luy jëw boo xam ne dañ ko teg ci deru nit nit ka bu jogoon ba dem ci barab ba bañ ko xamee woon ñëpp a koy fonk ñu wax ci moom wax ju ñaaw ba bu yëgteetee ñëpp doodal ko ci làmmiñ lay jógee julit nag yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy nee na mooy ki nga xam ne mbooleem julit ñi dañuy mucc ci lépp luy loru làmmiñam wayët yi dañuy mucc lépp luy loru loxoom ku loreetul ci làmmiñam loreetul ci loxoom nag kooka mooy borom jàmm kooka mooy muslim tabaatu muslim mu ngi jógee ci mucc kon ku mucc kii musle ci lépp luy lor bu mën a jógee ci moom kooka moo mën a mucc ci luy lor yu jóge ci ñeneen lii mooy melokaanu jullit bi la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax kuy musle ci làmmiñam ak loxoom rek moom it kuy mucc la ci làmmiñu ñeneen ak loxoy ñeneen wal muhaajiru man hajara man allahu anhu gàddaay buñ ko waxee mooy ku gàddaay li yàlla tere gàddaay ci tàmbalib lislaam ponk la woon ci ponki lislaam yi ku bàyyiwuloon makka génn bàyyi fa mbooleem sa ñoñ ak sa alal ak dem medinatul mun na war a fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonent defee woon ak sahaabam yi ku defuloon loola ci jamono ak ginnaaw mataguloon ba ñëpp doon yittewoo gàddaay yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bés mu xamal leen ne gàddaay mooy ki gàddaay li yàlla tere gàddaay mooy laxasaay jógee ci barab dem ci barab mu xam le nag ne gàddaay bi gën a mat mooy bàyyi lu yàlla tere tax jëm ci li yàlla digle kon ba tey nekkete gàddaay googa ñooña doon def jógee barab jëm barab war nañu ba léegi ñu nitam ndax suñ diina mën a mat te mooy bàyyi lu yàlla tere jëm ci li yàlla bëgg li yàlla santaane rawaahu alxamsatu juróomi yëpp ñoo ko soloo juróom ñooñu ñooy ñan jàngoon nañ ci tàmbalib dars bi mu ne bu waxee juróom ñi ñan ak ñan la ci jublu danaa leen natt ci biir njàngale mi ndax loola xam ngeen ko la def juróom ñooñu mooy ñan bu kenn tontuwul tey itam bàyyi leen ci xel waxtaan wu njëkk wa denc nañ ko ci ay band ko déglu di nga xam yu mel nii yëpp ba buñ la ko laajatee nga mën ko wax ngeen fexe nag ba beneen yoon ku ma ci bett joxoñ la ne la juróom ñi mooy ñan ñaar ñi mooy kan ñaari sëriñ yi mooy kan ñett ñi mooy kan nga mën ko wax ndax waxoon nañ ko ci anam bu leer maa ngi leen koy dénk rawaahul xamsatu juróom yee ko solo wa zaada tirmisi yu wa nisaa yu wal tirmisi yu ak nisaa yu ñoom xadis bu noonu mu ñëwee dolli nañ ci wax ne wal muuminu man aminahu naasu ala dimaihim wa amwalihim ku julit ke julit lañ waxoon ne moom la julit ñi mucc ci loru làmmiñam ak loru loxoom tirmis yu ak nisaa yu ñoom dolli ci wax ne moomin ku gëm yàlla kii nag man aminahu naasu ala dimaihim wa amwalihim mooy ki nga xam ne nit ñi mucc nañ nit ñi wóolu nañ ko ci seen deret ak seen alal ku gëm yàlla ki mooy ki nga xam ne nit ñi ñëpp wóolu nañ ko ne seen deret du tuuroo ci moom ne seen alal du sànkoo ci moom kii mooy ku gëm yàlla ki kon jullit ak gëm yàlla jullit bi mooy këm ni jullit ña mucc ca ñaaram ya làmmiñam wa ak loxoom ba ku gëm yàlla ki mooy ki nit ñi wóolu ci moom ne deret du turoo ci moom alal yi duñ sànkoo ci moom wa anhu ba tey jëlee nañ ci ki solo di xadis boobu di abdullah ibni omar mu ne ana rajulan saala nabiya sallallahu alayhi wa sallam ayul islaami xayrun laaj na ko ban islam mooy bi gën ci lislaam yi ban xeetu jëf ban xeetu jaamu yàlla moo gën ci jaamu yàlla yi loolu mooy laaj bi xaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne ko tutimu taama wa taqra'u salaama ala man arafta wa man lam taarif ba tey loolu juróom yee ko solo lu dul termit yi ban xeetu jëf mooy bi gën ci xeetu jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy nga lele ñam ngay lele ngay joxe ñam te ngay nuyu ñi nga war a nuyu ngay joxe nuyu te mooy na nga yaatal jàmm di jógee ci yow di dem ci ñi nga xam ne ñooy ñëpp ci sa wet taqra'u salaama julit mooy ki nga xam ne dafa yéene jàmm mboolem julit ñi fu mu leen fekk wax leen asalaamaaleykum te mooy mu def ci xolam ne mu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp lañu am jàmm kon ci xol lay njëkk a nekk waaye ci làmmiñ lañ koy fee feeñale yonent nee na mooy li gën ci jëf nuyoo boobu nag ca ka nga xam ak ka nga xamul yëpp na nga fexe matale ko ci ñoom mooy sa jàmm na yaatu ci ñi nga xam ak ñi nga xamul ñëpp rawaawul xamsatu ila tirmis an abi hurayrata radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaala al imaanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna shu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman hadith ngi ba tey ñu ngi ko jëlee ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gëm yàlla juróom ñaar fukk la ak lu topp ci ay banqaas wala boobu juróom benn fukk la ak lu topp ci ay banqaas bu ñu waxee ci arab bi doxoon mooy lu tàmbalee ci ñett jëm juróom ñeent kon lim ba xamuñu ko tudduñu ko leeraluñu ko dañoo wax rek juróom ñaar fukk ak lu topp wala juróom benn fukk ak lu topp loolu mooy bi doxoon waaye nag yonent nee na fa afdaluha ba gën ci xeetu gëm yàlla yooyu yëpp mooy wax laa ilaha illa allah moo ci gën wax nag la wax ci làmmeñ ndax laa ilaha illa allahu ku ko wax te xol ba gëm ko fokk borom nekk jullit ba xaqan muy ki nga xam ne ñëpp mucc nañ ci loru loxoom loru làmmeñam ñu wóolu ko ci seen deret ak seen alal kon ki wax laa ilaha illallah mbooleem jëfi lislaam mu ngi ci moom dana ko jëfee moo tax moo ci gën wa addinaaha ba ci gën a néew nag imatatul ada an tariq mooy nga jëlee lor ci yoon randal ko ba kenn ku fa jaarati lor woowa du la lor moo ci gën a néew la ci gën a néew nag kenn mënu ko def lu dul da nga ko jëlee ci la gën a rëy te mooy gëm yàlla yoon waa ngi liy loree ngi ci dégg la mbaa lu mën a doon gis nga ko mën ngaa jàll te du la lor nga yëkkati ko teggil ko ñeneen ñi war a ñëw sa gannaaw loola moo ci gën a néew kii def lu mel noonu nag mooy ki nga xam ne moo gëm yàlla te yéene mboolem nit ñi lu baax yemul nag ci kaw yoon rek waaye déggee ci nag lépp loo xam ne day lore waxin la jëfin la lu mën a doon loo xam ne yëg nga ne lii daal ku ko bàyyi lor juddoo ci nekkal ñeneen rek nga toxal ko ci làmmiñ toxal ko ci jëf toxal ko ci noo ko toxalee rek jàppal ne ca la bokk wal hayaa'u shu'batun min al iman ba tey nañu xam ne kersa benn mbubb la mu rafet mu taaru lool ci xeetu gëm yàlla ku sumi mbubb moomu rek sol na mbubb mu ñaaw kersa nit bu amul kersa amul dara kon kersa tey benn bànqaas la ci xeetu bànqaas yi gëm yàlla ku amatul kersa rek nekkatul nit ci biir nit ñi dootul sol sax mbubb ndax bañul ku ko xool ak awram feeñ dootul wax lu baax ndax wax lu bon ak lu baax a yem ci moom yoonam ci nit ñi kon kersa benn xeet la ci xeetu gëm yàlla yi an tamim daari yi sallallahu radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaal addiinu nasiha qulna liman qaala lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimin wa aamatihim rawaahum alxamsatu jëlee na ci tamimit daar yi yal na ko yàlla may ngërmandeem mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne diina moom laante biir la diina laante biir la boo xamee xamalal sa morom mu xamul boo amee dimbale ci sa morom mu amul boo mënee fexeel ba sa doole dimbalante ci ak mbokki jullit yi diina daal laayante biir la toog jàngale sax laayante biir la waxtu julli jot nga yëgal sa morom ma xamuloon waxtu woo fu mu toll ne ko waxtu yu jot na laayante biir la masalaa ngi xamu ko nga xam ko ne ko nii nii lañ koy doxalee laayante biir la lépp luy xeetu laayante biir daal nañu xam ne ci lislaam la bokk bi yonent waxee wax ji nag saxaaba yi ne ko ci kan laante biir boobu ci kan la ñuy laante biir mu ne lillahi ngir yàlla ci yàlla la ñuy laante biir wali kitaabihi ak ci téeréem bi la ñuy laante biir ak ci yonentam bi kon laante biir boobu mu wax day baax ñu xam lan mooy laante biir laante biir mooy nañuy laante biir ci lépp lu gërëm loo yàlla ñu taxaw ci te lu gërëm loo yàlla mënuñu koo xam lu dul dañ koo xamee ci téeréem bi di alquran te téeréem bi mënuñ caa déggee dara lu téeréem bi lañ ko déggee sallallahu alayhi wa sallam ak kan wali aimatil muslimina aimatul muslimina ba tey itam laayante biir gi ci ñoom dana ci yegg te mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ñooy njiitu diine ji te mooy nga warmaal leen topp seen ndigal ca la gërëm loo yàlla gërëm loo yonentam sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo wax ne yaa ayyuhan naasu yéen gaa yi gëm yaa ya yéen yaa ayyuhal ladina amano yéen ñi gëm yàlla atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum yàlla wax ne yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla ak yonentam bi ak ñi nga xam ne ñooy borom mbir yi mooy ñi méngoo seen i mbir seen i kilifa kon wali aimatil muslimin aaya boobu moo ñu ko jàngal wa amatihim ak mboolem jullit ñi itam te mooy nga jubal leen ñoom ñëpp ñu jëm ci la nga la leen di may texey àddina ak àllaaxira te ku mel nag nii kooka rek moo mën a nekk xalifaab yàlla ci suuf si te doomu adama yi kenn ku nekk war na di jëfee jëfinu moom mooy xalifaab yàlla ci suuf ndax fii xalifaab yàlla yàlla mu bëri yërmande mi fokk di nga am yërmande nekkal ñëpp kon fotol yaa ngi laayee biir ñëpp ñu mel melokaan ba nga xam ne ci la ñuy tase ngërmande yàlla loolu kat xam sa ñoo ko solo anil abbas ibni abdil mutallib